let's, let us suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mooy ngëneel ak xam ak topp ki nga xamante ni moom mooy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ba su ko defee dañuy bàyyi oustaz mu daal di continuer ak waxtaan bi incha allah ñu bàyyi xel ñu dégluwaat encore incha allah oustaz tafaddal mashkoura
alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi ba tey rek noo ngi ci leeral sunu kemtalaayal kattan topp gi nu war a topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak xam ko waa ji nee na fa qul li bi rabbik ayuha al aqil an nasih li nafsi hal min taazimi rasul wa maarifati xaqihi al iraadu an sunnati sëriñ bi nee na yow boroom xel mi maa ngi lay laaj ak sa xel bu rëy bi nga am ndax bokk na ci màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak xam ay ak xam nga dëddu sunnaam ndax loolu dëgg-dëgg yenn na maanaam ndax loolu xel nangu na ko ndax xel nangu na nga ne man bëgg naa yonent bi dama koy màggal xam naa ay aqam dama koy joxe waaye lan nga def mooy al iraadu an sunnati nga dummuyu sunnaam wa tahaamiha tadabburan wa fahman wa ihmaaliha takaasulan wa ajzan bi daawa annahu la yaqdiruuna ala fahmiha mu ne léeg-léeg nga gis koo xam ne bi muy atte woo dafa sànni sunna yonent bi fële atte woo leneen léeg-léeg nga gis koo xam ne bi muy jàng daa sànni fële sunna yonent bi comprendre ci dara def ko sàggane soo ko waxee mu ne la loolu kenn mënu koo jàng ndax dafa compliqué dafa jaxasoo ba pare nag bi waa ji waxee loolu ba pare ci la taxawaat nag di woote ne moom bëgg na yonent wa annahu la yastatiu zalika ahad fi hadha al asr léeg-léeg nga dékku ne sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam dund ko ci jamono bi mënta nekk mënta nekk topp yonent bi moo mënta nekk waaw lu tax mënta nekk ñu mën a topp sàmba topp demba topp messi topp mbër yi topp topp topp topp topp ba topp rappeurs yi topp simbukat yi ñu ne mënuñoo topp yonent bi te ñu mën a topp ñooñ te yonent bi di suñu royukaay yàlla wàcce ko teg ko suñu kanam daal ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee rek daal di jub waaw loolu nu mu nekkee moom dong la ñu yàlla joxoñ benn baaraam ne su ngeen ko toppee rek daal di jub amul keneen assurance boobu moom dong yonent bi moo ko am xool leen ñi ko toppoon ci saxaaba góor ak jigéen jël ci kenn rek tey nga def ko modèle ci waa Sénégal munuñu ko roy te kooku lan moo taxoon mu baax mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam la toppoon kon doomu ndey yi mbokk jullit yi kenn mënta wootewu ne man bëgg naa sunna yonent bi ba pare te doo ko dund munta nekk yonent bi boo ko bëggee da ngay dund sunnaam ndax loolu kër xéewal gu rëy rëy la dund yo sunna yonent bi alayhi salaatu salaam topp ko xéewal gën a gën te rëy xéewal googu koo xam ne lépp lu muy def ci dundam day xool naka la ko yonent bi defee woon mu defee ko noonu pourtant même sunu téere yi ndaw yi nga xam ne moom lañ commencé jàng daf ñuy wax ne jullit wala yaxillu lahu an yafala filan hatta yaalam hukmallahi fii amoo droit def dara lu dul loolu ngay def xam nga lan mooy atte yàlla bi te atte yàlla bi nag yonent bi moo ko jàngale kon nanu góorgóorlu mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw nanu góorgóorlu xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam siiraam xeeñtu njubam di góorgóorlu ci li mu doon def ci jaamu yàlla nga xam ne moom la fi bàyyi ñu góorgóorlu suñ koy def ñu jéem ko defee moom ni mu ko defee woon loolooy li ñuy dimbali ci sunu dund ndax loolu la ko yàlla yónnee pour mu ñëw wannu naka la ñuy defee du ñun rek ñun ñooy toog bu mu neex nu am lu ñu war a def rek ñu créer ay mbir nangam nangam daal di def tey da ngay gis ci biir réew mi ay mbir yu bëri dañuy sos xoolal léegi lu xew lu bees luñ jël mooy ku am tudd balaa ñuy tudd ñu ne nañ wàcce kaamil ku am dëj balaa ñuy suuli ñu ne nañ def fi daawu mbir yu bare bare bare bare bare bari te loolu yëpp soo doon laaj tey doomu aadama yi ñun ak yonent bi kan moo gën a xam alquran imam man gisuma la woon sa jugal man gisuma la woon sax ahlan ahlan bik ijlis kooku mooy sunu sëriñ jàngee nañ ci moom mbokk yi hal arafa rasul man yatahakam ila gayri est ce que xam na yonent bi est ce que bëgg na yonent bi ku fi bàyyi li yonent bi di indi dem atte woo feneen est ce que kooku xam na yonent bi hal arafa rasul man yatahakam ila gayri kayfa yakunu naka la nekkee moom mi naan man bëgg naa yonent mu bàyyi fi yonent dem atte woo leneen li yàlla yonent indiwul ba pare mu taxaw ne man bëgg naa yonent bi gëm naa ko bëgg naa ko te yàlla dàq ngëmu ñooñu fala wa rabbik laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ñii dañoo ñëw atte woo ci leneen lu dul li yonent bi indi yàlla dàq seen ngëm kon ki ne man bëgg naa yonent bi na nga nangu yonent bi atte la xam ngeen ne Omar rey na koo xam ne dafa lànk atte yonent bi alayhi salaatu wasalaam Omar rey ko kon man góorgóorlu sunu dund sunu kéemtalaay kàttan dem ak dikk def ak dindi ñu xool naka la ko yonent bi doon defee wa hal arafa rasul وآمن به من يرد حديث صحيح لأجل كلام شيخه أو عادات قومه est-ce que dëgg dëgg mbokk yi waa ji bëgg na yonent bi waa ji gëm na yonent bi moom mi nga xam ne day delloo hadis bu wér nga taxaw ne ko hadis nee na xoolal barki démb am na waa ju taxaw ci télé bi lépp lu doon sunna yonent bi mu dajji ko sànni ko fële dem ba ne góor sax mun na akolaat jigéen dara nekku ci waaw li yonent bi doon wax moonu daal innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin li ma ragal ci yéen mooy ay njiit yuy réeralaate loolu nag lan bari la tey ay njiit yoo xam ne dañuy réeral nit ñi lu araamoon ñu daganal leen ko lu daganoon ñu araamal ko lu yàlla bëgg ñu sànk nit ñi bu ko kenn def loolu septième siècle la woon non temps bi heure bi non non non non jullit yi bàyyi loolu moonu loolu moonu alak tey ndax kii ne man bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama koy roy gëm naa ko ñu taxaw ne la yonent bi nee na nga naan waaye suñ ne jullit yonent bi nee na warut cee teg baat samina wa ataana la war a wax waaye ñu ne la yonent bi nee nga naan mais il paraît diw ñun sunuy maam samba demba mbokk yi imam ahmad nee na ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras yàlla kub yonent su waxee kenn amatul droit di ci teg baat waaye li ñu sonal mooy jullit ñi lépp yonent bi dañ ko mujjal ginnaaw lépp aada yeeg bidaa yeeg xeet yeeg nangam ak nangam loolu lañ teg ci kaw moo tax ñu nëbbu yonent bi nit ñi tey boo jëloon micro di wax nit ñi kan mooy yonent bi rek xam nga fuñ lay yemloo mooy fii waa li waa jardin di jàng aminata yaayam abdalaay baayam makka la juddoo madina la faatoo loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu ne est-ce que est-ce que est-ce que loolu lañ xam ci yonent bi waaw mooy loolu waykat bi di way waaw loolu kese c'est que loolu li ñu gën a bëgg ci yow mooy sa dundin wi sa dundin wi ngay dund nga teg ko ci yoonu yoon bul wuuteeg yonent bi bul jël benn mbir ci mbiru dund ngay def yow ni nga ko bëggee fekk loolu yonent bi wax na ci ba pare yonent bi jàngale na loolu nuñ koy defee wane na ko yonent bi génnul àdduna lu dul lépp wane na ko sallallahu alayhi wa sallam bañ na ko ba sax bi mu fiy jógee dafa ne taraktukum mahajjatum bayda layluha ka nahaariha mu ne laa yazigu anha illa haalik guddi gu mel ne bëccëg laa fi bàyyi yoon wu leer nañ ku ci jaar yonent bi nee na yaa ngi teere ji biir aljanna nee na guddi gi daa mel ne bëccëg kenn du ko wàcc lu dul ku nar a alku kon buñ banee alku suñ bëggee jub nan góorgóorlu suñ kemtalaal kàttan suñu dund ñu xeeñ ci njubal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax loolu la ñu yàlla wan foofu la ñu yàlla tegloo foofu la ñu yàlla joxoñ kooku la ñu yàlla wan ñu war a nekk ci ginnaawam waruñu ko jiitu ci sunu lépp nag sunu jaamu yàlla yépp julli koor jàpp def lépp xoolal waajooju ma leen di wax ci rajo bi ci télé bi la taxaw daan ne jàpp kuy jàpp kenn warul raxas tànk kenn warul raxas tànk daanaka dafa mel ne keroog dañ ko yónni woon pour na dajji sunna waaw jigéen bu ko neexee bu meesu ba doyal na ko këppoo dara nekk ci moom mbax nee yem loolu la wax nee na mbax mees ak mbax nee yem ñi ne ko jàpp nag mu ne ku mu neex bu raxas tànk da ngay waaw waroo ko raxas dañ ko war a masa gis nga di indi ay suba di lëndëmal loolu mooy sunu problème ñu mel noonu nag jar naa jar nañoo xam ba suñuy waxate sax boo leen séenee ci sa poste télé nga àndal ko bañ leen a déglu jeex na kenn du jiital lenn ci njàngalinu yonent bi raxas tànk ci jàpp yonent bi moo ko doon leeral sunnaay yonent bi mooy jàpp na raxas tànk masa tànk loolu du sunna mbirum si ala te ñun ay sunnit lañ ñun alquran ak sunna la ñuy dund kon Sénégal dañu war a wax ne suñuy jàpp na raxas tànk loolu mooy sunna yonent bi yonent bi moom dégg moo nu gën a dégg alquran moo ko doon firil sahaaba yi ba muy jàngale jàpp li aaya bi wax yépp yonent bi mu yegsee ci tànk daf ko raxas kon ñi nga xam ne dañ ne dañuy masa tànk ñoom ñoo gën a dégg yonent bi aaya bi jàngale nañ jàng sunna Bukhari Abu Dawud Tirmizi Nisa'i Ibnu Maaja ñoom ñëpp lan moo fa nekk raxas tànk sifatu wudu nabi bi sahaaba yu mag yi jàngale yëpp lan moo fa nekk raxas tànk waaw kon naka la keneen di taxawee di wax loo xamante ne nit ñi dañuy màmm dem di fekki kooku kon mbokk yi dañ mën a tënk waxtaan wi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki yàlla yónni ci ñun moom mooy sunu royukaay moom la ñu war a toppandoo ci sunu lépp sunu lépp nag laa wax bàyyiwuma dara su ma nee lépp lu sa xel dem rek dañ ko faa war a toppandoo comme li ma wax sànq joxe ay modèle ci sahaaba yi nuñ ko doon toppandoowee ci naan ci lekk ci tëdd ci dugg ci toilette ci def lépp yonent bi moo daan wane ñuy def kon loolu buñ ko xamee deeme naa nii danañ tourner ajaat sunu niveau ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lii wane ne bëgg nga ko mooy fexeel ba lépp looy def rek benn xale dem daf ma seet si mu ne chaque jour damay am coow sunu kër waaye dama koy régler ndax su ma defee dara rek ñu ne ma yow lii rek man leen yonent bi nee na xuzu anni manasikakum mu ne ci hadis boobu rek laa ko kal ku wax rek man la yonent bi nee na xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ñuy jaamoo yàlla te lii may def ni yonent bee ko doon def jeex na soo jëlee hadis boobu rek nga def ko sa kanam looy def ci jaamu yàlla su la ci nit ñi bëggee song rek ne leen xuzu anni manasikakum yonent bi nee na nañ jël ci moom nu ñuy jaamoo yàlla nga noppalu loolu dina wane ne yow bëgg nga ko waaw ah waykat yi nee na waykat ba nee na innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku bëgg da ngay topp ka nga bëgg gis nga xale yu jigéen yii ku ci takkoon kenn tey du fanaan këram dañ naan ko aca sa jëkkër gis nga parce que daf ko bëgg daf koy topp su waa ji demoon ba ñooro maamu ndëri da koy topp waa ji yóbbu ko foo xam ne amul courant amul ndox amul dara waaw waaye ndaw si day nangu dem semaine bee passé dañ doon lijjanti benn sëy waa ji sëy ak soxna ji soxna bi sept ans am ak moom ñeenti doom ñu am problème ñu koy lijjanti bi mu ñëwee toog ñu ne kàddu gaa ngoog ma ne ko yow sa doxalin ak xale bu jigéen bi lu tax nga doxalee nii mu ne lan laa def ma ne ko bi nga ñëwee fii di takk est-ce que xamoon nañ la mu ne déedéet ma ne ko kii nga àndal nga wax mooy sa kilifa moom lañ xam moom lañ wóolu woon moom lañ doylu woon yaakaar ne ni mel noonu nga mel ndax moom moo la fi indi ñu may la ma ne ko ñaata nga indi bi ñu lay may kenn laaju la alal ñaata nga joxe yaa ngi koy fàttaliku ne waaw ma ne ko nga yóbbu ko musée yi nga dugal ko ci néeg bu pareegul amul bunt amul fenêtre kenn raaxu ko kenn peentiru ko amul amul sax tapi mat la nga ci sànni ma ne ko instant yi dégg naa ne jënd nga kër ba tabax ko ba luwe ko ba léegi ndaw si amul lal bu mu tëdd loolu est-ce que bëgg la koo bëgg di nga ko def noonu mbokk yi koo bëgg da nga koy teral koo bëgg da nga koy fonk koo bëgg da ngay nekk ci wetam waaw bu onkee nga sëqat bu jiitoo nga nekk ci ginnaawam bu ñu geestoo gis la loolu mooy wane ne bëgg naa ko ku bëgg yonent bi noonu ngay mel lépp looy def dangay fexe mu dëppoog li yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam ba ci sa dàll yi ngay sol fexeel ba booy sol dàll yi xamal yonent bi ban daal la doon njëkke ban daal la doon mujje simmi kon incha allah maa ngi tënk ma jox sëriñ bi sama ginnaaw su ma ko teeloon gis avant muy toog fii kon dama koy bàyyi mu def deuxième partie bi incha allah waaw ndax moom mooy suñu sëriñ mu nga borom xam-xam yi dañu ne ndox bu teewee jàpp ya tiim yàqu na doola la ñu wax isa xadaral ma batala tayammum ñun nag tiim lañ moom mooy ndox mi cheikh laa budda laa budda laa budda walaw bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala